73 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. noo ngi nuyu mboolem jullit yi fi teew. soppey alquraan yi fi teew soppey daara yi fi teew soppey ndongo daara yi fi teew soppey daara yi fi teew di ndokkeel sunu mbokk ndongo yi ci seen bis bu màgg bii ñu leen tànnal te ña ko tànnal nekkuñ wooni tànneef te bis bi di bisu tànneef dégg ngeen bis bi ñanu ko tànnal nekkunuy tànneef waaye bis bi day bisu tànneef UNICEF et consorts les organismes la ñoonu tànnaloon nee ñooy bis bi jagleel nu ko neena na nooy nun taalibe yeey forme bee baaxul waaye fon bi baax na ndax bis bii di la 20 avril ci la sang bu tedd ba ki gën ci li yàlla bind gane woon àdduna muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ne bis bi day bisu tànneef ña ko tànn nag ñoo du li tànneef waaye bis bi bisu tànneel tànneef la ñu tànnal ko ay tànneef sallallahu alayhi wa sallam batax na kon merewunu leen ci bis biñ ñu tànnal lañ leen meree woon mooy nañ ko daan defee nañ ko daan màggalee di saboote daara di saboote ndongo daara yi di diaboliser daara di diaboliser ndongo daara yi di diaboliser sëriñu daara yi di diaboliser ndongo yi nga xam ne seeni wayjur ñoo tànn indi leen ci daara ñuy jaboliser waajur yooyu tànn seen doom jàng alquranul karim bis bi loolu lañ ci daan def gannaaw daara ji nag yeewu nanu te mosuñoo nelaw ñu ne dootuñ leen seetaana ci le 20 avril ngeen ci wane sunuy pot ak sunuy tànku neen ak sunuy yëre yu tilim bàyyi sunuy résultat pot bi tànk neen yëre yu tilim yi dañ koy utee wurus muy téere yàlla bi di alquranul karim ba tax na bu leen nu àttee sunu yëre yu tilim yi saxuñu ci man mi taxaw ci yëre yu tilim yooyu laa doon sol tey kenn dàquma sañse ana yëre yu tilim yooyu bu leen ñu àttee sunu pod ya man ca laa daan yor ca Kaolack ca daara sama sëriñ sëriñ Basiiru Saar naan laara bilaaraan gàddu sama bool bëccëg naan sarax añ gàddu sama bool guddi naan sarax reer tey waxatuma laara bi laaraan saraxootuma añ saraxootuma reer damay saraxe añ ak reer di sarax kuy wax laara bi laaraan ana sama pot ya ana sama bool ya kon bu leen nu xool tey xool leen nu ëllëg du nu tey du nu ki ngeen di gis tey dafa am kiiraay bu dox sunu digganteeg yéen ba mënuñu mënu leen a jëriñoo li nu yor kiiraay bi mooy lan mooy sunu yére yu tilim yi sunu tànku nee nii sunu pot yii bu leen ko xool xool leen appareil yére yu tilim yi appareil tànku neen yi appareil pot yi lan lay jur ñii fi teew ñëpp ñooy yalwaankat yi ndax feeñ na ci seen kanam ancien yalwaankat yi ci Sénégal mooy ku mel ne Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh yalwaan na ba doon xalif général des Tidianes ancien yalwaankat yi ñooy Serigne Salihu Mbacke yalwaan na ba doon xalif général des Mourides seen pot ya lu mu leen wàññi bu leen xool tey xool leen ëllëg moo tax ci suñu ñu bind ci aar daara journée nationale des talibés 20 avril 2021 en Rufisque damay yalwaan ngir yàlla sarax ma ngir yàlla wala nga bàyyi ma ngir yàlla loolu la ñuy damay yalwaan ngir yàlla yow mi may yalwaan ngir yàlla logo wala slogan bi dafa fort de yalwaanu ñu ngir sunuy poos yalwaanu nu ngir yëre yu nu sol ñun sëriñu daara yi wala suñuy ndongo yi yalwaan loo wuñ leen ngir ñu indi ñu yëre yu nu sol yalwaanu ñu lu ñu denc suñuy kont mais dañuy yalwaan ngir yàlla ngir yàlla mooy lan ngir jàng téere yàlla takbir takbir moo tax bu ñu lay yalwaan lu ñu lay wax laara bi laaraan mooy yaa rabbal anaam ñu lay woo ci turu yàlla ne la sarax nu ngir yàlla te yonent bi moo ne man saalakum fillahi fa aatuhu ku leen laaj ngir yàlla jox leen ko ñu ne la sarax ma ngir yàlla ndax dama laa laaj ngir yàlla soo ma mënta sarax ngir yàlla nga bàyyi ma ngir yàlla tawhid la wa amma saaila fala tanhar wa fi amwalihim haqqun lisaa'ili wal mahrum am na ustaas yu naan yalwaan amul ci diine feruñu ijji nañ dem daliba bu yalwaan amul ci diine alquran ay yu bari balaa bulut nan lañuy ñuy firee wa fi amwaalihim xaqun lissaili assail taalibe la mahrum taalibe la day laaj dañ ko xañ ay droit am moom taalibe moo tax muy laaj waruñoo concentré wu ci taalibe bi laaj mais dañoo war a poser question lu tax taalibe bi di laaj dañoo bokk ci réew mi juddoo ci réew mi am dant d'identité réew mi sunuy bàyyi di sénégalais sunuy yaay di sénégalais sunuy maam di sénégale ñuy cotiser ci réew mi di fay impôt di fay ay taxes ñu dajale ko ñu bëgg a jàng ñu xañ ñi sunuy droit jox ko sunuy morom ku bëgg a jàng tubaab ñu tàmbale la primaire ba nga am diplôme am bac ñu yóbbu la université nga am licence am master doo fay dërëm ñun ñu bëgg a jàng ñu lañu ñu dërëm duñ leen ko jox ñee di jàng tubaab la ñuy lii moo indi sunu yalwaan lenn ci sunu yalwaan balaa ngaa wax yalwaankat bi waxal ci ki ko yalwaan loo waaw waaw lu lay dégg de moom lay misaal ci boroom kër gi nga xam ni daa am ñaari soxna mooy état kii di aawo kii di ñaareel mu am aawo di daara aawo bi mooy daara mu sàggane ko dundalu ko dëkkalu ko faju ko ba aawo bi ay doomam di ndongo di yalwaani di def tànku di sol yére yu tilim di dëkk ci kër yu yeggul am ku dugg ci dëkk bi fekk fi doomu aawo bi naan aawo bi dafa sàggan doomam yi dañoo salte dañuy def tànku neen dañuy sol yëre yu tilim awo bi moom dañ ko war a tere li muy def dañ ko war a tëj dañoo war a tëj ay doomam mu takk ñaareel moom borom dëkk bi borom kër gi uh-huh. ñaareel ba doom ya di sol yëre yu set mu dëkkal leen ci taaxum kaw buñ demee ba université ca taaxum kaw la du ñu fay ndox du ñu fay courant mu leen di neexal ngir ñuy jàng nga ñëw ne waaw kii moom doomam bi dañoo silvisé dañoo set aaw bi ne moom la war a mel mais ñaareel bi doomam yi salte wunu dañuy sol dàll dañuy sol yëre yu set am na koo ragale wax dëgg am koo yeb waaw mooy dëgg de waaw am na koo ragale wax dëgg am koo yeb dangaa waroon a wax ak bàyyi ju jeng ju dëng ji sàggane aaw bi ki doomam ba ay doomam di yalwaani di dëkk ci kër yu yeggul bàyyi ju dëng ji mooy état mooy bàyyi ju jeng ji loolu mooy misaal bi ma ciy faral di joxe kon boo ma mënta sarax ngir yàlla ma ne la bàyyi ma ngir yàlla loolu mooy sunu slogan bi dañ ne woon danañu ko leeral waaw am na beneen buñ bind it non violence non à violence des daara akay yi yamatuñ ci xañ ñu sunuy droit mais léegi far sax dañ cee boole mille vingt 2021 bi di nu dóor Oustaz Taha Ñenga ngi ñuy taxaw yéen ñëpp dégg ngeen turam moom la fi takk dee di tojoon bëtam waaye fooguma ne danañ ko dollee ci de foog ngeen ko fooguma ko de ah ndax ka masali xabbatin la ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba waaw benn bët bu toj ba ka masali xabbatin ndax programme bi dafa chargé dañuy jaajëfal rek waa Tëngéej ci turu aar daara yëpp aar daara nag kii laajte mooy lan jàppal ne mooy yow aar daara ni ñu koy waxee du kuréel gu beddiku ci biir kuréel yi du association bu am récépissé du association bu am président ak vice président ak secrétaire général mais doomu daara yi bootu ci kuréel yi ak ñi bootuwul ci ay kuréel te du ñuy set doomu daara ñoo boolewu tuddee seen bopp ñoo booloo tuddee seen bopp aar daara moo tax boo ñëwee ci biir aar daara yaa ngi fa fekk ñooñ raabita ñooñ fédération ñooñ madaris ñooñ waxdatul kataatib ñoom ahlu jamaatil quran wa sunna ak ak ak ñooñu ñoo composé aar daal ak ñi nga xam ne sax mosuñoo bokku ci benn kuréel professeur Cheikh Omar Diagne ngi nii toog mosul bokku ci benn kuréelu sëriñ daara ta mi ngi ci biir aar daal ay journaliste ñi ngi ci ay docteur ñi ngi ci ay médecin ñi ngi ci ay commerçant lu ne ci secteur yu ne ñi ngi ci biir aar daara képp ku bëgg alquran bañ injustice bañ daara ak ñooñ daara ñooñu ñooy waa ne daara nañ ko jox àqam wala ñu bàyyi ko mu doxal maslaha ñii ñooy ñii ñooy aar sant nag waa nga xam ne tey bis bi ñoo ko organisé ci turu aar daara bu ñu tuddee kilifa gi sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Niang mu yóbbaale mboolem kilifa yi ñu sant sëriñ Bamba Dia mi nga xam ni coono yu nekk la toggoo ngir bis bi ant moog imaam Baye Mor Sall leen yàlla fay yiw bu ñu leen tuddee ñu yóbbaale ñëpp. ah su ko defee programme bi nii lay tëddee ñu jàng discours ci français Serigne Khadim Diagne moo nu koy jàngal léegi. bu daanelee imam Babacar dana ñu jàngal discours ci wolof bu daanelee danañu jox kenn ci waa Rabita mu wax ci seen tur muy sëriñ Massou sëriñ Hassan ci waa fédération wax ci seen tur muy sëriñ Massour Sambu bu ñu daanelee professeur Cheikh Omar Diagne mooy ubbil imam ba Badara Ndaw mu dugg ci conférence bu daanalee seen Mouhamadul Fata conquérir ñu ñaan insha allahu taala ñi fi teew ñëpp ay kilifa lañ ku ne buñ la joxoon nga mën a waxtaan waxtaan wi yëpp mais ñen nay wax yóbbaale ñëpp ko ñu sant ñëpp gërëm leen ah ñu may ma rek balaa ñoo jox ki nuy jàngal discours bi ma fàttali xasiida bu benn mbokk defoon ci daara ca jamonoy Abdoulaye Wade la woon nag nga xam ne fitna yi yàgg na fitnaal yi yàgg na waaw dotay yàgg na daf ne woon ngeen bàyyi ñépp di dox di jàpp sëñ daara képp di tëj ci réew mi Basiiru Jaane ni ngeen ko daane ak tooñ la laane yéen juge réew mi antum xuyaara mislal usaara la dan nasaara aada i réew mi gaa yi xeex daara quraan a leen soof mooy li sëriñ Babacar Si Abdul Aziz waxoon xeexuñu daara al quraan la ñuy xeex quraan a leen soof te du jëm suuf yàllaay ki koy roof kàttan ci réew mi jàppe geeg tëje geeg dóore yeeg xaañe yi te lii fii ngeen di jaare dee naari naar yi waaw lii wóor na réew mi ñun doomi daara ñooy saytu daara duñ bàyyi daara muy sooy ci réew mi luñ koy saytoo kënuy daara yi luñ koy saytoo tabat yadaa luñ koy saytoo ak baxbaxaa yi mooy jëp ci réew mi baxbaxaa waaw nun doomi daara ñooy saytu daara duñ bàyyi daara muy sooy ci réew mi luñ koy saytu kënuy daara yi kënu yi daaraam mooy yan tabat yadaa yi ak baxbaxaa yi mooy jëp ci réew mi kii xeex daara nga xëy ne koddu sa biir ne foddu xasaw ne medd nga able réew mi allahu akbar takbir lii moom na leen leer yàllaa nu may leer gu raw lawar weer ñuy saytu réew mi luñ wax mu antu luñ jéem mu sontu duñ ñaan mu gàntu ñoo man ci réew mi tahaddusan bi ni'matil wahaabi noo man ci réew mi waaw man ci réew mi ku ko weddi ku fi bëgg falu si seetuñu seet ku falu yàpp ku bëgg falu seet ku falu yàpp ñu ñu naar bi xoromam waaye ku falu fuuy rek folliku takbir takbir ñooy sàmm ndaw ñi di soññ mag ñi di yar jigéen ñi ñoo gën ci réew mi ñooy takk sëy yi di tudd doom yi di faj garab yi waaye ñun ñoo baax ci réew mi waa réew mi bég nañ xaw ma ñan mais waa réew mi bég nañ ci nun te xam nañ suñ cër te gis nañ suñ jëf ci réew mi yéen ñiy gouverner yéen xam leen bu wér ne ñun ñoo di génne kaadaru réew mi cadre réew mi ñun ñoo koy génne l'école française comme vous comme nous never avancé personne ci réew mi kuy wut meilleur homme ci daara ngay jëm sëñ daara moo am lii ndam ci réew mi waaw daara ji respecté leen ko accepté leen ko financé leen ko ci budget réew mi daara ji respecté leen ko accepté leen ko financé leen ko ci budget réew mi soxla wu nuy sarax ak i aide de ñun sunuy sarax kër yi doy na ci ak population bi mais gouvernement laajuñ leen sarax sunuy droit lañuy wax ne jox leen nu ko takbir fan ngi gis Ndeye Saly Diop Diagne danaa tudd turam ndax aar daara dafay tudd turam muy wër di séddale ceeb naan ñu naan da doon dimbale ji daara yi moo nu yàq. dëgg sa moom dañoo war a dimbale nun ñu ne ko nga may nu jàmm te suñuy droit nga jox nu ko bu naan dañuy dimbale ceeb ak ab diwlin na toog gi ceebam ak diwlinam te may nu jàmm la ko wax soxlawu nun dimbal suñu droit lañ ko laaj. gouvernement bi muy président Macky Sall loolu lañ leen laaj. mais tout le temps aide aide aide aide ci daara yi mais ñun soxlawuñu seen su suñuy droit lañu wax jox leen nu ko moo tax mu ne respecté leen ko accepté leen ko financé leen ko ci budget réew mi loolu la ñu wax waxuñu leneen sarax moom suñu daara bi laaraan yi ñuy wax ñu nu koy jox population bi associé ak ñun xam nga daara ji association la ak ak ak population bi population bi ñoo gis seen bopp ci daara kii saraxe bu ci gisuloon boppam ñu ko ba ñuy yalwaani ngeen jox ko ñeneen ñu dëkk ci taaxi kaw baaluñ leen ko waaw munuñ leen munuñ leen munuñ leen xañ suñuy droit ba noppi mayu leen ñu jàmm su ko defee xasiida boobu lu gudd la euh, te discours baa ngi war a ñëw ñu tënk ko foofu te ngeen baxel ne du yéen a fii ne ba yow mi diini dinoo se réew mi kam ko waxoon jóge na fi jamono yam ko waxoon jóge na fi mu ne ta ngeen xam ne du yéen fii ne ba yow mi diini di noote réew mi mu ne ko la folli Senghor far juuf fal juuf mu far nguur du bàyyi njomboor muy sax ci réew mi te jiitu la doon waxal foofu nag da doon xuloo moom xam naa waaw ba mu ca moom naa ko ko baal mu ne ko nag man léebu naa leen te kàll naa leen wolof yu leer yéen ñi jiite réew mi xaayaan balaa leer nga dégg séeréer mais fi ne ay seer ñoo gérer réew mi ku gëm ku gumba tëxlu du yomba xamlu du yomba xamloo ku gumba du yomba xamloo naa far taxawlu naa far taxawlu di sant réew mi loolu la ci toftal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon mbokk yi ñu jox sëriñ xaadim jaañ mu jàngal nu discours bi ci français buñ noppee imam Babacar si la jël kàddu yi ci topp nag ñu def ko deux minutes deux minutes ngir imam Alioune Badara Ndaw mën a dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan benn message rek laay wax di jéggalu ñi nga xam ne waxoon nañ leen ne dañuy mars sëñ Bamba sëñ Saaliw Congaan defe naa annoncé woon nañ fépp ne dañuy mars bàyyeekoo ca rond point ba dox ba fii du loolu lañ waxoon ñu bari ki toogal nguur gi ci dëkk bee nu ko xañ du ma ne moo nu ko tere mais dam naan moo nu ko xañ ndax le 13 avril lañ bind demande yóbbul la 13 avril tey ñu ngi ci la vingt tontu wunu ba tey ci tànt bi la ñu soog tontu léegi la tontu ne man ngeen koo de fekk ñëw nañ ba toog fii. oh xoolal loolu incha ma waxaat ko xanaa dégg na li ma wax. dañoo demandé woon ne dañoo bëgg a marché suñ journée bi dañoo defar suñuy banderole ne dañuy ànd ak suñuy ndongo ak parents yi ak soppe alxuraan yi dox bàyyeekoo ci rond point bi dox ba yegg fii nii ci jardin bi def suñu programme. le treize lañ demandé tontu wuñu tontu wuñu tontu ba bii amuñu tontoom ñu ne nun du nu xëtt yoon ndax nun ñooy jàngale yoon ay responsable lañu du nu génn di mars te joxuñu suñu papier ñu téye ko ñu annulé mars ba ñëw toog fii bi ñu toogee ay booru midi wala 11 heures yu teg lañ soog bi indi benn yi ne préfet nee na autorisé na ko yéen yëpp na ngeen ko yëgee noonu ba jigéen ñi dem marché lañ bëggoon a marché mu bàyyi ba jigéen ñi jóge marché mu soog bi ñu digal ñu marché doy na añ la ñuy xaar mais pas marché wasalaam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 73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax